polémique bi bëri na nit ñi jàpp nañu Abou Diallo la n'est-ce pas. duñ yokk dara ci polémique bi. il il waaw d'accord mais ngeen leeral ñu. il refuse de se leeral c'est juste que ne faut très faire la première pour la loolu moom yéen a ma gën bi indi indi polémique rek lañ lañ lañ. ci loolu ñuy leeralal ci loolu. loolu moo tax ñu li ñu semblé wone ak li am c'est pas la même chose. lan moo am. li nga gis li wax léegi nii. man li ma gis kay loolu laa wax. waaw ma moom la loolu moom moom laa wax ma ne la. loolu ñu bëgg a ak li am c'est pas la même chose. la vie dans la réalité. Hmm. ñoom ñaar nuyonte nañ ba pare. ci boo xoolee di nga gis ne nuyonte nañ ba pare après déplacé ñëw ci baar bi foofu Abou n'a pas jugé nécessaire. nuyoowaat ak kii mais loolu rek la ñu wane. moo tax ma naa la li ma lay wax nii yéen a ma ko gën a xam parce que yéen vous êtes des professionnels. oui mais xam nga Ousmane man j'ai été le premier à dire que faut pas ñun dans ce contexte là ñuy jël polémique di ko yóbbu la première chose que je me suis dit moom mooy la fédération sénégalaise de football ñoom ñoo am exclusivité image yi ci arrivé Lions yi. Mhm. donc il y a de fédération du ko wane. benn de deux fédération di alimenter polémique donc mais man mais man li tax ñu interpeller par rapport à ça mhm. moom mooy depuis ce matin mhm. je vois une photo d'Abdou Diallo sur les réseaux sociaux les gens di ko critiquer mhm. alors le Sénégalais lambda bi toog tey ci këram qui n'a pas compris la situation il s'est dit que Moussa Niakhaté Abdou Diallo ils ont un problème loolu moo tax ñuy poser cette question là mais ci aspect sportif la sélection koo xam xam na rek di ñuy doxee xam nañ notre sélectionneur ni muy doxee donc pour man sur ce fait là y a polémique mm-hmm. donc les gens ni nga waxee xëy na li ñu bëgg nit ñi gis loolu la ñuy wane moo aussi les images bu nit ñi gisee tam ñaxate mu tàllal loxo Abou Diallo il a discuté mm-hmm. loolu la ñuy retenir mais man bu ma xoolee man sama jugement bopp je ma dis que bien avant la main di jóg je vois bien Abdou jàllo parler loolu man sama jugement la man j'ai vu les images mais aussi chacun ni muy interpréter donc le sénégalais lambda bi toog tey ci këram di alimenter cette polémique là loolu moo tax tey ta question là ñu teg ko sur la table. surtout que séquence boobu rek la ñu